mbokk internautes yi daleen ak jàmm Lansana Gagny Sakho mi nga xamante ni nag kenn dootu ko présenté ñëpp xam nañ ko euh, ci APR ndax moom moo daal di euh, jiite nag ONAS euh, di réseau bi nga xamante ni moo yor lépp luy war ci wàllum assainissement ci réewum Sénégal moom Lansana Gagny Sakho mi nga xamante ni yàgg na ci ONAS gile sax te kenn mësu ko daal di nag audité sax wala boog nga koy indil ay gittangaans nag rawatina ci njiitum réew mi di Macky ndax lu nu war li nga xam ne mooy wàllum assainissement saa bu taw ñëwee ñu ŋàññ ko fii ah, ci réewum ah, Sénégal te kenn mësu koo laal moom mi nag kenn mësu koo sax tudd nag ci ah, mbir moomu le dafa mel ni nag fu mu toll nii tam ëppi na ko buum ndax nag fu ko neexe lañ koy daal di tëggee moom mii li ko waral mooy dinaaw bi nga xamee ni nag démb ca conseil des ministres ñu doon amal ni ki mercredi di àllat ba démb gi la ñu daal di signé moom président Macky Sall signé ab décret goo xam ne daf koy destituer si ay fonction maanaam dañ koo daal di jëlee nag ca direction bu ONAS moom mi nga xamante ni moom mooy Lansana Gagny Sakho nga xamante ni sax tur wi nekkoon na loo xam ne empreinte la foofee ca ONAS nag de saay su lañuy ŋàññ assainissement bu réewum Sénégal taxul falar gënoon na toog daal di gën a ne mbàpp ca direction bu ONAS démb nag daal nañ koy wàccee foofu jël keneen daal di ko fay teg di Cheikh Mbaye moom mi nga xamante ni moo nekkoon nag directeur de l' assainissement foofee nag ca ba moom koy jël mu remplacer ki nga xamante mooy mooy Lansana Gagny Sakho wante nag ñun du nomination wala boog destitution fonction bi sax moo ñu daal di soxal wante la waral lu ni mel moo tax ndax moom mi nag ah, ba fii président Macky Sall ak ki nga xamante ni moom ministre bi ñu yor ah, lépp lu jëm ci wàllum ndox mi ci réew ma Sénégal dañ koy nag saay su ne di ko daal di nag ah, tagg ak tamit di félicité ci liggéeyam gi nga xam ne moom la ñuy daal di amal moom mi di Lansana Gagny Sakho wante li ñu daal di jàpp gis ko ci ab jàngat mooy ne rek la mu daal di nag seet ko na ki nga xamante ni moom Ousmane Sonko moo ko waral ñu daal di koy jëlee ci postam booba di direction bu ONAS moom Lansana Gagny Sakho bu nu fàttalikoo rek ne euh, ginnaaw ki nga xamante ni euh, moom mooy Ousmane Sonko ci nawet gi nga xam ne ci la ñu génn mbënn mi metti woon lool euh, ci askan bi rawatina ci banlieue bu Dakar moom ci la Ousmane Sonko daal di jëloon ndogal ne dafay daal di dem ni moom mooy ca banlieue ba foofee sax mu daal di ki nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye Dany bu mouvement gëm sa bopp ki nga xam moom mooy Ousmane Sonko nag ba mu demee ah, daal di nag ah, laaj askan wi seen i tawat nag ci mbënn mi nga xam ne moom lañ doon dund ah, ci nawet bu nu génn nag ca daal di bindoon ab lettre adressé ko ki nga xamante ni mooy DG bu ONAS bëggoon a laaj ay nag ci koppar yu bëri yi nga xamante ni moom la ñu daal di dugal ci wàllum nag li nga xam ne mooy assainissement ci réew réewum Sénégal te fi léegi nag kenn xamul fan la koppar googu daal di dugg moom Ousmane Sonko daal di interpellé directement DG bu ONAS ba woon di Lansana sax Sakho ngir mu daal di indi ci nag ay leeral moom mi Dylan Sana-Gagny Sakho nag ci daal di xamle woon ne nag audience bi dana ko ko may wante du doon ci jamono yi wante nag mu daal di koy dikk promettre ko ab audience boo xam ne dina ko ko daal di may mu ñëw toog nag laaj lépp lu mu bëgg nag ci ay chiffres koppar financement waaye nag lépp lu ñeel waatu ba assainissement nag ci ba mu toggee ca bopp direction ba ba tey lépp la daal di jëloon ndogal ngir daal di ko koy leeral mu mel ni loolee moo metti nag président de la république Macky Sall mu daal di nag jël ndogal ne ko nag li nag da ngay daal di wàcc dem toogee nële ndax yow mi nag li nga bëgg a def nii man xaw ba lu mu doon te itam balaa nga koo def waroon nga mën a laajte sama avis ba noppi moom Lansana Gagny Sakho daal ci gàtta bu nu ko jàngatee nag nekkul loo ni euh, nag lu xamante ni nag mën nañ ko daal di nëpp nëppal ak nëpp waaw ndax dafa mel ni nag ni li nga xamante ni mooy audience ga mu daal di nam moon a daal di amal ci ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko mu naroon ko a ca DG euh, boobu nga xamante ni di direction bu ONAS moo ko jaral